Gaay yi ci buntu kër xeer ni ñu ko gisee noonu ñii di waa brigade d'intervention polyvalente ñoom ñoo ngi ñu ngi jéem a neutraliser euh, le reste ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di yëngu-yëngu ci kër Ousmane ko chef chef chef chef pardon bëriwul de. ah bëriwul de bëriwul de amatuñu si amatuñu si wax. waaw am na ku ñu jàpp am na ku ñu jàpp bu ñu noonu bu ñu noonu ñu yóbbu am na ay arab yi waaw boy attention boy. stratégie vous avancez là-bas. Allez, allez-y là-bas. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y là-bas. Non, non, non, non. gaay comme yéen ak yéen ñu ngi nii kër Sonko. adversaire yi ngeen di sànni soo leen sànni. policier ñëw ñëw commencé sànni lacrymogène. opéra yi commencé sànni jël. ma commencé à sauver. waaw. ñu ngi kër Sonko lacrymogène a ngi nii di tàkk. on est dans une dictature totale. Le président Macky Sall a maltraité tous les opposants. Il a maltraité Karim Wade, il a maltraité Sonko. Tout le monde sait Sonko n'a rien fait. Il dit lui, c'est un patriote. Ah il est il aime son pays. Maintenant, des politiciens qui sont là comme Macky avec son gouvernement, c'est eux qui n'aiment le Sénégal. Ah Mais son peuple aime n'a qu'à les gens en paix et personne ne dit rien. Il n'y a que la jeunesse qui a que la jeunesse qui est leur, leur destin est en jeu contre Macky Sall. Macky a tout vendu. Il a vendu le pétrole, il a vendu le gaz, il a tout vendu. Ah, vous, vous, comprenez Il a eu des plaintes partout dans le monde. Il le sait très bien. Il a toutes les informations qu'il faut. Maintenant, il veut détruire son corps. Il n'a qu'à laisser son corps en Le, Macky Sall, Macky Sall, le président Ouad, vraiment, c'est un démocrate. Mais on regrette pour Macky Sall. Même Senghor, ça va. Même Abdou Diouf, ça va. Mais Macky Sall, c'est pas un démocrate. Macky Sall, vraiment, il est un Il faut qu'il parte. non non non non non non non non. ah non non présentez-vous. ah non non non non non. mais je m'appelle Mamadou Moustapha Sané Mamadou Moustapha Sané voilà c'est ça merci beaucoup. Sonko! injustice bi moo war a jeex injustice moo war a jeex waaw injustice bi moo war a jeex Sonko la ñu wax Sonko waaw suñu droit la ñu nekk dañoo ne suñu droit la manifestation par illégal yéen yow moomu leen ko Macky Sall moomu ko Bassirou Diomaye Bassirou Gueye moomu ko procureur de la République léegi nag ñu war am na policier li ñu bëgg ñun duñ ko nangu ñoo ñoo ñu fekk fii ñoo war a reculer dem ñoo ñu fekk fii c'est une ñoo ñu fekk fii policier ñoo war a reculer dem mais ñu bàyyi ñoom ñoom ñuy négocier muy négocier ñi ñoo war a dem ñoom ñun duñ ko nangu ñoo ñoo fekk ñu fii kon ñooñu ñoo ñu négocié ñoo ñu war a dem bàyyi suñu suñu liggéey ñu xool ñu gérer ñooñu bu ñëwee pour adressé loxo ñu ne dañu bëgg a jàmm ba pare ñu ñu bàyyi leen ñu ñëw dugg kër Sonko yóbbu ko duñ ko nangu loolu la ñuy bañ. voilà ñun étranger bu ñu bëgg ko nangu loolu wóoruñu parce que depuis ce matin ñuy xeex ñoom lu ñu. waaw parce que ñu ñoo ngi ne léegi dañuy négocier mais si négocier ñu négocier bi yëpp c'est parce que dañu sonn. instant fii fii fii fii territoire sont fatigués a négocier ak ñoom. instant fii territoire la tey. mais qu'est-ce que les policiers veulent négocier ils veulent négocier quoi. ils veulent négocier ils ont dit qu'ils vont négocier parce que ñoom ils sont en position de défaite ñun duñu négocier. ay leaders politiques de viol de de xaw ma lan médiéval ça li dafa xew li amul. on va pas négocier lii c'est la dernière goutte d'eau va tomber sur cette base là c'est fini. la phase elle est pleine avec Macky Sall duñ ko may dara. dara duñ ko may dara on est prêt pour pour mourir ici a que ça. merci. Ah. yi négocié nañ ak policiers am. Go! Go! waaw mi ngi noonu de police ak manifestant moom jàmm mënu fa yàgg. trop c'est trop. sànq commencé woon nañu négocier. trop c'est trop. mi ngi nii affaire mooy ñu ne commencé waat na nga commencé waat nañu sànni. affaire mooy ñu ne yaa ngi noonu de. ko fi naan ñu ñu waxoon naa leen ko sànq war ñu leen def confiance waxoon naa leen ko kon nag dañu def confiance waaw mi ngi noonu eh eh oh oh oh bi oto Sonko la bi oto Sonko la li moo doon yóbbu gaay gaay